waaye ñaanal jullit ñëpp rawatina taalibe yi ñu ànd ci liggéey boobu te sëriñ bi nangul nu ko euh, tey jii rek euh, xam ngeen ni dafa bokkaat ci bis yu màgg yi euh, di bis bi nga xamante ni ñoo ngi ko jagleel xasida yi Cheikhul Khadim yi ñu koy amale fii ci Touba Milano ñu nekk ci treizième édition bi ci loolu nag ci la nekk di ci amal ay plateau yoo xamante nii dinañ ci jàngat ak génn ci ay débat yoo xam ni am bi dinañ ci jariñu maanaam bu weesoo déglu xasida gi ak njàng mi waaye den ci génn ay thèmes yoo xamante ni thèmes yi lislaam la thèmes yi jàngale la thèmes yi la waaye thèmes yi fàttali la ndax eh, ni ko alquran waxee rek fàttali la ndax fàttali dina jëriñ ki gëm eh, ci loolu rek ci lañ toog ak ki nga xamante rek moo di Serigne Khadim Faye eh, sëñ Khadim kon ni may def rek mooy jox la kàddu gi nga nuyoo bu ko defee ñu dugg tuuti ci waxtaan wi nga xam ne fas yéene nañu ko laabiré mbokki jullit mbokki taalibe yi kon sëñ Khadim tafa dal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 ñooy yi gën a màgg ci kaw suuf ñu dajee di ko màggal di ko sante yàlla ngir xéewal gim ñu defal ci seexul xadiim ak xéewal gim ñu defal ci ñaar yi muy alquran ak xasida kon ñoo ngi leen ciy ndokkal di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy taxaw ci suba ba léegi te ànd ko mbokk yi ak waa presse bi di ci sant bu baax a baax ci liggéey bi di wane ne liggéey Serigne Touba la bu solo boo xam ne yéen a koy taxawu kon ñoo ngi leen ciy ñaanal ngeen di suñ dajee ci tawféex ak ndimbali sëriñ bi ci barkeb Seexul Xadiim ok jërëjëf jërëjëf sëñ xadim eh, kon xam naa ngir njëkkanteeg waxtu rek sëñ xadim tey ñi ngi war a waxtaanee eh, tawxiit ak Cheikh Ahmadou Bamba wala tawxiit ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba eh, tey bu man bu ne tawxiit ci ñi nga xamante ni xëy na ñi ngi dégg baatu tawxiit muy luxa arabia nan nga nu mën a lan mooy tawxiit waaw ah, bismillah xam naa kon thème bi nga mel ne ci tawxiit ak ci biir xasiday Serigne Touba wala tawxid ak Serigne Touba kon kiy diglu la tawxid mooy lan ci moom ba pare mu doog a xam ci mbir sëñ sëñ bi dana yaatu xëy na bu dee ci baatu luxa bi duñ ci sori mooy nga wéetal dara mu doon lenn nga lay alfardu mooy lenn loo xam ne lenn képp lay doon waaye buñ ko waxee silaaxan ne nag ci diine moom mooy ne jëmug euh, jullit bi ci yàlla goo xam ne da koy wérale ci tawxid mooy ne buñ ne imaan أمنا موي كي وخ لا إله إلا الله محمد رسول الله كوك دا نان ليغا اب جولي لا واي نا تصحيح إيمانه بالتوحيد لولو موي گم كو خامني داف كوي ويرالي سي توحيد توحيد أي ميلولو يو خامني سي يالا يو آجو سي يالا يو خامني نيت كي داف كو ورا خام اك يو خامني دنج نان دافا وار موي ñaar fukki melo yu ko señ ni ko señ bi jangale ci tasawur shekhar yenen ñaar fukku yo xamne day jomb ci yalla ak yenen yo xamne lu dagan la bu ko nexé def bu ko nexé am parti boo xam ne it dañ koy gëm ci yonente yi ak nu ñu war a gëmee ci ñoom ñoom itam ak li ñu war a gëm ci malaayika yi ak li ñu war a gëm ci téere asamaan yi ak akub dogal ak yowmal xiyaam bu ñu waxee tawxiid daanaka lii day ëmb day ëmb day ëmb gëm yii yëpp ba noppi gëm bi day am ci tegtal yu muy yu muy tego bu ñu nee tawxiid ci julli ñi loolu loolu loolu la ñuy jublu ci dëgg-dëgg tawxiid danañ ko borom xam-xam yi nag daan nañ ko woowee usulu diin mooy cosaani diine dëgg-dëgg daan nañ ko woowee al fiqhul akbar fiq bu mag bi xam nga ginnaaw yonent bi ginnaaw saaba yi la xam-xam yu bari nag juddu ci lislaam ngir ñi dugg ci lislaam bari na kuréeli lislaam yi tàmbali naa taxaw ñeneen yit ñoo xam ne ay mustasrixiina muy européens yi duggoon ci lislaam ak yu mel noonu ak kenn ku ne bi nga duggee ci lislaam indaale say aada ba indaale yeneen gëm-gëm ak yeneen aada ci lislaam ci la boroom xam-xam yi jug nag xam-xam bu ne am ñu ko féetewoo saytu ko tudde ko aw tawxiid nag ci la ko ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo ngi tënku ci tawxiid al imaamul ashari yi ci ñoom lañ tënk ba ci sëñ bi ci boppam ci tawxiid boobu yi la nekkoon kon daal ci gàttal ci tawxiid mooy loolu mooy nit ki gëm yàlla ba noppi gëm gi mu wéralu ko ci tawxiid tawxiid gi mooy gëm goo xam ne dafay tegu ci ak xam gëm goo xam ne li ngay gëm dafa am noo koy dañ koy tàqale nga xam ko bu wér a wér loolu mooy ci gàttal daal bu ñu nee tawxiid loolu loolu moo ci moo ci moo ci mooy kii bi. ak sa ak sa jërëjëf sëñ Xaadim kon li nga xamante ne rek mooy li ngay wéetal maanaam euh, am nga gëm-gëmu. Hmm. dara waaye li koy mandargaal mooy euh, wala cofeel wala euh, méthode bi ngay utiliser ba loolu mën a mën a mën a wérér. léegi bu nee sëñ bi di ko tedd ki hmm. moom nan la dundee woon tawxiidam. Hmm. waaw bu dee bu dee Cheikhul Khadim moom. bu ñu nee Cheikhul Khadim ak tawxiid da nga naan léegi nañ jël dunduk sëñ bi lépp. loolu mooy mooy tawxiid daanaka tawxiid ju doon dox ci kaw suuf la. توحيد جون دقت كوزو وعنا نلقو في إندي ون مام لقو في إندي ون لب ويسول سال توحيد كوزوف ما يلون عليه أقلد التوعيدة للإله مقلدا مدح نبي الله مم دندم جب جن لا إله إلا الله محمد رسول الله دكو جف في مندم جف في كتير دخنام كم نبين تعمل يا رفدا نروح نسون برام جدد بيا الإسلام لتسيب العلوم النافعات يا عليم يا خبير تعمل بلا نخ والتحيي بطريقة الوحيدي mooy yoonu tawxiid na nga ko dundale ci man ci man lay yoonu tawxiid dundale kon moom euh, dafa mel ni ci tawxiid rek la doon woote loolu mooy wax li mu wax ne adduxu ilal ilaahi bi tawxiidi ton an raaytu anhu yi maxiidi damay woote jëmee ci yàlla ci lan ci tawxiid lay woote te kenn du ma gis ma jeng jëm ci lu dul tawxiid comme mbooloo mi bi mu leen woowee daf leen a woo xëcc leen jëme leen ci yàlla mooy ba tey wax na ne lillaahi billaahi atxu lil ilaahi ci yàlla lay woote jëmee ci yàlla mooy li may woote kon génnul génnul génnul yàlla kon mom tawhid dafa melni dafa ñëwoon rek ngir yeesal ko mbindam it daanaka weesuwul lolu lim bind lépp euh saxal tawhid ci kaw suuf amna xam nga amna fu muy waxe fu bari kasbiya tawxiidu ilaahiyal jalil loolu am na am na wa matxu wa matxu hibbihi wasilati khalil amna na kasbiya tawhid wa lin nabi nga xam ne sama fagguteef ci kaw suuf مدح النبي جي موي محمد رسول الله توحيد دي موي لا اله الا الله دا نك دوند جيب نون لا غا خامني لي مي دك كو سوف ييب داي واخني تاغ جي مي تاغ يالا جي مي تاغ يوننتي بي ليب دار جوتو سي لودول توحيد موكو جي دوغال يقودني لمدح التوحيد توحيد موما موما يوبو سي ماكوي تاغ توحيد موما يوني بيم نيوي دا دا فك نيت ني سين گم گم خوار راف seen gëm ci yàlla lu bari ci tàmbali ci yu bari tàmbali ci duggu yo xamne yi taxone borom xam-xam yi ñom imam al ashari don talif di jug di saytu xam-xam bobu yi daanaka bi serigne bi ñëw nit ñi àggatoon nañ fofu ngir gëm-gëm yu woyof yu doya di serigne bi nag bi ñew li wax mooy ne ujaddidu tawxiida ujaddidu tawxiida wal furuuxa xawaa tasawufin maha buruuxa mooy dama fas yéene nag leeral leeral tawxiid yeesal ko ndax leeroon na ci kon daa demoon ba nit ñi fàtte ko kon léegi damaa ñëw nag ngir yeesalaat yoonu tawxiid kon loolu moo loolu moo fi loolu moo ma indi ci àdduna ngir ma taxawal tawxiid xasiida yi doon bind lépp tawxiid la bind na ci téere yu bare bari bari am na ci yoo xam ne daf koo jagleel tawxiid képp képp lu mel ne Mawaahibul Quddus nga xam ne eh, imaamu Sanusi yi moo ko njëkkoon a bind sëñ bi ñëw yee salaat ko yaatalaat ko te Mawaahibul Quddus yi ci gën a yéeme bi koy bind sëriñ bi Maam Mor Anta Sali ngi fi amagu ma Mamour Anta Sëy jàngal na ko Sëñ Aafiya ak ñenn ci ay doomam ci ci dunduk sëriñ ba nga xam ne daa mujj Mamour Anta Sëy li jël Mawaahibul Quddus di ko jàngale bàyyi waseer wu njëkk wa nday ja mm-hmm. bindaan na ko mooy téere umul barahin bi Imam Sanusi bindaan na ko tuddi ko nasmun aaxar li umul barahin mm-hmm. bind na ko ñaari yoon faydul xanii muxnii benn la bu mu bind ci tawxiid di ko jàngale euh, faydul alimil xabiir bu mu bind ci tawxiid da di ko jàngale euh, jaalibatu saada njël beenuk tasawudu chixaar njël beenuk tasawudu subbaan amna benen bo xamne xam da koy def ci xasida gim teñke la laata xuflum sinatu mu def ko fo absara bo xamne ci tawhid la jëm kon bu ne shaykhul khadim ak tawhid dal dafa melni mom kaw suuf lim fi doon indi moy tawhid rafaxtu tawhidi yi dama jikati sama tawhid jeme ko ci kan lil ilahi al alamin wa quttu am daaxii li ahmad al amin kon ñaari tànk la doon doxe ci digënté yàlla ak yonente moy saxal tawhid dal moko fi fi ci gàttal ci ni sëñ bi doon doxe ci tawhid Eh, ni mu ko li ko fi indi woon weesuwul loolu bu ko defee xëy na moom bi mu ñëwee it kii ñëw di woote ab laajam dafa mel ne dañ koo taxaw laaj ko ci jën diine la nekk mu leeral leen yaa saa'ili an ay diinin yustafa inda al ilahi haaka diinul mustafa diine yonente bi ji mustafa indi woon ci laa nekk ndax lan mu ne da dama bëgg ngeen wóolu ne diine jenn diine amul judul moom hmm. diine rek moom rek mooy diine fa yàlla ay xin bi am na diine inda allaahi islaamuna laa diina silmalaahi moom sëriñ bi jëpp wontoon jeneen diine am na kon yu mel noonu moom tawxiid la doon di diini ya tawxiidu ilaahi naasi sama diine mooy tawxiidi suñ borom ji kon lim bind lépp ci la ko bind buñ xoolee diiwaanu muraqil am na wa da ngay gis ne lépp tawxiid la daanaka am na ci yoo xam ne nag comme yii ñu lim léegi moom daf koo jagleel tawxiid di ko ci jàngale yi ci des yëpp nag da koy bind di ko ci kii ngir ci euh, koy jàng la ak doonte sëriñ bi jàngale tax ko daa jóg xam naa ñu gàttal ci boobu incha allah maanaam noonu nga ko rek euh, ndax noonu mu tënk ko ci ni moom reconnaître benn diine bu dul diine l'islam daanaka day dalu ci alquranul karim bi ni mm, dina inda lay islam mm. Mm. waaye ci méthode bi mu andee itam daanaka euh, ndax dani suñ borom bam ne euh, maanaam la ilaha illallah mm-hmm. nee na euh, mbindeef yëpp dañoo gëlëm mm-hmm. waaye ci yërmande mu mu joxoñ le daan li muhammadu rasulillahi mm-hmm. loolu kon day dellu ndax kon ci bayitam bi nga xam ne moom li ko yitteel dëgg rek mooy lil moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatoo xaraawi ni ahmadou waaw loolu loolu dafay dellu ci loolu ndax yonente bi buñ xoolee at yim njëkk woote mhm. muy treize ans yim def màkk yëpp amu ci benn at boo xam ne dara ci attey diine wàcc na lu du doon woote ci tawxiid képp ba ci xadiis yi ñuy gis ñuy wax ci ñuy wax ci mm, laa ilaha illallah ku ko wax du na xadiis yooyu yëpp jamono boobu la ko waxoon diir bi mu nekk diir bi mu nekk màkk ndax tawxiid suñ borom daf ko fonk ba nga xam ne waroon nañoo ñëw tuuti sax ci njëriñul tawxiid ni ci serigne bi ni ci serigne bi waxe nga xamne da ci indi ay njariñ yu bare bare bare xam nga mom da koo won muy xam-xam bi gën ci xam-xam bi da wax ne mbooleem xam-xam yi ci mbollem xam-xam yi xam-xamu tawhid moy xam-xam bi nga xamne mo gën ci mbollem xam-xam yi ba noppi wax ne bépp xam-xam bu nit ci yóbbu bàmmeel wala ëllëg yowmal qiyam budul tawhid budul tawhid bu fa tawhid mën ta mucc mën ta jaar fenn bu mucc bu fa yóbboo tawxiid kesse kesse kese nag suñ borom man nako defal tawfiq sax mu mucc ndax moy yonent bi mo ne ku wax la ilaha illallah do sax safara ak donte bo tafa de mën nga fa jaar ñu fur say bàkkaar te ku ak tombu gu nek toll tawhid bu nek ci yow moy li suñu bi wax ne wa afdalul ulumi bil itlaq taw'id rabbina ala ittifaaqi mooy mbooleem xam-xam yi xam-xamu tawhid mo ci gën léegi nit ki li muy yóbbuloo ci biir bàmmeelam li muy yóbbuloo ëllëg yowmal xiyaam tawxiid ja tawxiid moo ca moo ca gën mooy lakinama tawxiidu xayra suxri li saxdi fi lxabri wa yowma nasri li annahu an xayrihi yuxni wala bi dunihi yufidu ilman musjala mooy loo fa mën a yóbbu te yóbbu fa tawxiid amul njëriñ loo fa mën a yóbbu mooy la alqona ilaa man atallahu bi xalbin salim xalbin salim nag mënta am ci lu dul tawxiid mooy njëkk ci nit ki mooy nit ki xam boroomam bi ko bindoon ba pare loolu bokk na ci njëriñ yi nga xam ne sëriñ doxuk bi mu ñëwee loolu nga wax ne li Moustapha nawaytu may jaddidu daa wax ne awalu waajibin ala al muridi taxsilu saadihi min at tawxiidi mooy warteef bi njëkk ci murid bu mu mën doon ne ci man nga aju nga fexe ba am yubbal bu doy sëkk ci tawhid nga fexe ba am ko waxaat ne ndax li ko waral moy ne képp ko xamné da daa wuuteeg dëgg dañ lay dàq ci péy bi yàlla ba te dëgg nak moy ne nit ki tambalé ci jàng xam-xamu tawhid moy lim ne wax ne wal yaalaman kullu zakiyyin wa balid an alladhi yukhalifu alhaqqa tarid wal haqqu batu alabd bit bi wal walfiqu an tasawufi majidi mooy ñett yoy faw kon mit bi da wara tambale ci xam-xamu tawhid bu noppee tek ci fiq tek ca tasawuf bu noppee nak bépp xam-xam bu am jariñ mu do koy jàng moy lim wax ne wa kullu ilmin bi manafi'in yafi ak mbolem xam-xam bu am jariñ rek nit ki man nako jàng waye tawhid nak moy li nga xamne mom mo wër a ci nit ki mhm. motax gis nga bim mu dem Gabon mhm. kam njëkk sel tasel galga gaal ga mhm. te mu waxu adiy addiye ji safat joji muy wax ilaan la dal maakiri koko ko waralon ab salum salum lu xam ne dafa dajeeg mom ci mom nee ci la Gabon la jëm mu ne ko won doqi adiy bare làkk mu denku mu ne ko foofi mën jëm nga xam la ilaha illa allahu rasulullah moy bis ko fi jaamu yalla bis dina ñew nga xam yalla rek ke yalla foofi jëm foo jaamoo fa yàlla fudul ni Muhammad inde bis dina ñëw nga xam nga xam ne Muhammad rasulullahi kon dafa mel ne noonu yim nekkoon sax da leen ci doon woo noonu la ko doon dunde moom yëmul sax ci ci ci di ci bind waaye daf daan daf daan noonu yim nekkoon daf leen daan woo mel ne na sax ni ko booleeg ñoom loolu la mooy na euh, bañ guñ bañal yàlla ne kenn la loolu képp mel na ne moo ko booleeg ñoom mooy li mu ne لكم تدارعت فيكم مبكدا لكم ما لم تطوبوا له والله قد شهد إلى هنا يا نصارى جل عن مثل توبوا له واتركوا التسليز والأودا da ngay gis ne façon waxin bi mu ciy waxee dafa yam yéene léeg-léeg sax mu wax li ne uffin li xaw min salla suu ko yaa axat tuskare ñeel la nit ñoo xam ne dañ laa dañ laa dañ laa bokkaale ak kenn delluwaat ci uffin lakuma jooju waaw uffin lakum uffin lakum ngir nga xam ne ni meloon ci tawxid moom dafa dafa dafa dafa jéggi day wax ndax léeg-léeg ma seetlu ko da ngay seetlu histoire sëñ bi boo ko ñi bind ci ñoom yëpp ba ci xam nga euh, bi mu nekkee jurbel tubaab bi mas nañ faa yabal benn waay di ko gëstuloo ba xam sëriñ bi dana def jixeet ak yooyu bi mu ñëwee juróom fukki dërëm yooyu ñu ko joxoon mu jox ko sëriñ sëriñ bi suñ borom xamal ko li tax a jukkuwaa mu leeral ko daf ko waxoon ne mahdi yu bu ñëwaatoon ci kaw suuf di woote jixeet man dama wuyu ji ndax dafa am yoon wu ma bëgg a ci kaw suuf foo xam ne jixeet lii tuur deret daf ko yàq waaye gis nañ moom dafa waxoon aw yoonam daan ne ko aw yoonam sama yoon Tu ray jiit sax bokku ci weñ sax rey bokku ci waaye fenn rek lay seetlu man foo xam gis nañ ne dre maanaam dereeti ni tuur na ci moom te loolu tawxiid ku yóbbee muy bi mu ci géej mm-hmm. pension bi ko tubaab yi daan jox di ko daj mu koy sànni ñu dajale ko ba bari ñu ne buñ ko ko dana dana dana dana dana dana ko yittewoo mm-hmm. comme japone, jàppoon ne dafa tuuti Bima tax mu koy sànni bi ma def bi kurin indil dafa sëñ bi julli bay ñaan mu ne ko euh, xanaa du ab dërëm maaraab bu xanaa du ab dërëm mooy yàlla talal ma say loxo du ay sa yàlla ni ko sëñ Moussa ko waxee ne rek ma mbër ma fëkk ko ba xaañ ko xaxawtu mbër ma bamba gaañ ko nga xam ne da ko ko wax tubaab bi waxee dafa xëf xaalis bi mu tim ne ko xaañ ko ci kanam gi dara ji tàmbali nàcc xam nga tubaab ba porte plainte na ko ñuy dem sëriñ bi dem na wuy ji waaye ba léegi kenn xamul fu mujjee yàlla xam loolu da li ma ci jublu woon rek mooy histoire bi gis nga ne bi waa ji waxee ne ko maay sa yàlla loolu la mënta maanaam ni ko yàlla bindee mënu koo seere ba daal di jël lim yoroon rek xaañ ko ko mhm. loolu rek la ko mënoo fayee noonu noonu la meloon ci tawxiid mhm. kon xam naa ñuy gàttal foofu ngir bañ a guddal ba tey sëñ Xaarim day dugg ci mhm. euh, maanaam li nga xam ne daanaka dafa mel ni moom mooy mooy mooy euh, li naan feuille de bi nga xam ne dressé woon na ko muy bind ko jiiñee ni ko moom kat daanaka moom ña ko fi jiitoon rek ñooyam mm-hmm. day day dem ba yàgg mu woote jiyaat mm-hmm. mu ni waaw ini u jaayidoo mm-hmm. bi xel mi wa bi tuqaa nga xam ni loolu day delluwaat ci tawxiit yi nga xamante ni moom loolu lay loolu bëgg a woote wane ni yàlla kenn la yonente bi fi ñëwoon li mu fi ñëwoon nit ñi wax ko rappal ko loolu rek la bëgg a yeesal ba ba tegaat nit ñi ci ci kaw ci raay bi waaw waaw léegi ba tey bu ñu duggee tey jii boo nee boo nee maanaam tawxiit euh, nga joxoñ ko tey ci ban téere maanaam moo gën a gaaw ci téere sëriñ bi ngir mu am bu jooju tawxiid ndax loo xamante ni dañ koy jàngale wala yëg-léeg yëg-léeg la wala euh, lu nu war a màndargaal la ci dem ci kàggu nag. Mhm. toog jàng lan mooy tawxiid. Mhm. waaw bu dee ci laaj boobu am solo mooy ne tawxiid dañ koy xaaj ñaari xaaj. dafa am lu ñuy wax tawxiidul kalaam ak tawxiidul maarifa mooy sëñ bind ci ñaar yëpp. Euh, mawaahibul xudduus ak ay nasmu umul baraaxiin faydul xani il muxni faydul alim il xabir yooyu ci tawxiidul kalaam la ko binde alxidmatul mutahara am na téere mu bind ak ak moom la yeesalaat rek masaliku jinaan ñooyu ñooy tawxiidi maarifa nga xam ne day doon ñaari tawxiid benn bi nga xam ne bii dañ koy jàng mooy ilmul kalaam moom la borom xam-xam yi tuddee ilmul kalaam mooy melo yàlla yi nga xam ko xëy na ci ci bëgg xam tawxiid ci lu gàtt moom ni ko bi waxee ci tasoo du chaxaar moo ci gën gaaw ndax foofa boo xoolee tënk na ca tënk bu am solo mooy jox na la ñaar fukki melo yi war ci yàlla jox la ñaar fukki joomu jomam jox la li dagan ci moom bu jëwee ci yonente yeeg ñeneen ci gis ñëpp noonu la ko tënkee tënk bu gàtt la boo xam ne nit ki euh, mën na cee def temps bu gàtt gàtt gàtt ngir am tawxiid jooju bu ca noppee noppi na ja bu bëggee yaatal nag xam lay ya lan moo tax lii lan moo tax yàlla doon yàlla koo xam ne kenn bind ko te mu bind ñëpp yooyu bu demee ci umul baraahi bu demee ci mawahibul qudus dana fa fekk nag bëri yaatal ga ni mu ko waxee li andasal kitaaba su taqaddumi noonu ma ko waxee ci ba mag ba alal kabiri kashfil mumbahimi kon bu demee foofu dana fa fekk loolu moo ci gën a gaaw waaye moom yoonu mu ci jëloon mooy noonu mooy bu koy jàngale it tawxiidu sunni yu lay jël ndax xam daa bari ay ma yeneen ngiir ci lislaam ak yeneen kuréel yu xam ne kenn ku nekk na ngaa gisee tawxiid te bi ci ahlu sunna te moom la imaamu ashari yu def moom la sëriñ bi bind téere yi bind yëpp ci tawxid boobu la doon sukkandiku kon tawxid boobu it xam ko baax na ndax dañ ko dafa bari ñu koy xaaj ay tawxid as sifaatu jël tur yàlla yi jël sifaat yi jël afaal yi yenn nu neen ñu def ko ay tawxid waaye am na ko sëriñ bi gisee jàngalee ko ci téere yi jàngalee wu gàtt boo xam ne nit ki koy nit ku koy nit ki ko soxla bu demee dana ko daal di mën a jël rek Euh, li tax sëñ bi tàmbaliwu ci téere yi sax da ngay seetlu ne doonul lu nit ki mën a ñàkk moo tax sëñ bi da koo gaaw lu ñu bind rek mu tàmbalee ko ca ngir ne doonul koo xam ne ndax comme koo xamul tey nga day faatu wala suba faatu te ku ko fa yóbbaaliwul doo jariñu kon nit ki teel koo xam ba mën ko yóbbaale jariñu moo tax sëñ bi lim bind lépp noonu la koy defee da koy tàmbalee ci tawxiid te loolu moo ngi ko jëlee ci xadiisu Seydina Omar bi bi Jibril ñëwee woon di jàngal laaj yonente bi luy imaan luy luy lislaam luy ixsaan mu wax ko bi ndépp noonu la ko bindee tasuudi saxaar noonu la ko bindee jaalibatul buruur yooyu yëpp noonu la koy bindee waaw da ngay gis ne dafay jiital tawxiid def mm-hmm. ci feq te ci lixsaan nga xam ne ni ko yónente bi doon jàngalee daal noonu la koy jàngalee kon mbokk mi nga xam ne daf koo bëgg a am ci lu gaaw moom loolu moo ci gën gaaw mooy téere yi sëñ bi nga xam ne bind na ko moo doon téere yu gàtt yoo xam ne mm-hmm. diir bu gàtt la la ciy tënkal tawxiid jox ko lépp lépp la nga koy soxla lépp bu ko defee nag koo xam ne daa bëgg a xóotal kooku moom bu demee ci mawaahibul xuddus foofu moom fa la fa la daj dëpp ga nekkee hmm. fala moom moom moo moo leeral lépp moom ci ci tawxiid xam na ci gàttal ci foofu moom loolu lañ ciy kii waaw léegi gis nañ tam ci méthode bi nga xam ne sëñ bi utilisé na ko hmm. xam nga euh, ñu njëkk ñi dañ daan taalif euh, téere bu gudd a gudd nga xam ne daanaka Euh, sa jamono wala sa sa sa sa yitte. du la may. Mm. nga dem ci di ko jàngi. Mm. wala mm. boo gisee ni volume bi toll rek. mu xaw a mel loolu la. Mm-hmm. waaye moom ñu gis ni day tëlsam. Mm-hmm. maanaam résumé. Mm-hmm. loo xam ni euh, lu jafe la woon. ndax loolu dafa dugg ba tey ci bayitam bi muy wax ni rek ni maanaam ay taalif daal boo ci jàppee. man da ngay da ngay yegg ci suñu borom te doo dugg xalwa ndax mm-hmm. maanaam noonu muy gàttale mbir nga xam ne synthèse la koy defal mm-hmm. loo mënoon a ci sa diirub dund nga ko ci su mm-hmm. ban ban fasaxali ci sëñ bi am maanaam noonu jàpp jagle googu maanaam ci moom ni mu dundee la wala wala lu mu waaw loolu loolu li ko may man nga ni mu dundee tawxiit la ndax li waral mooy xam nga wax ila yaqudu lahu la ilaha asrara nim ko waxe bam lim jeex lepp la ilaha illallah te la ilaha illallah moy kalimatu tawhid da ngay setlu na tawhid ci bopam moko may lor yi motax dem ba dundu gim don dundu tawhid ci boromam nek ci bir non yi diko dundu fune mu nek fa diko dundu motax nak yalla nag wommat sekkira ba nekkoon ca batu tawhid muy la ilaha illallah dugul ko ci mbindam lolo tax li ngay jang ci mbindam mu leer ci sa bop mënoo koo ci benen mu leer ci sa bop non yi sekkira yi la koy xam nga dafa wax ne baqar xam nga am na fu mu wax jaddid bi al islaam li ci bil ulum an nafiaati am fu mu doon wax wa fii fu adi wa fii fu da al ulum am na fu mu waxee nag baqartali sirral ulum an nafia yàlla yaa ma rotti secret xam-xam yu am njëriñ ji xam nga téere yi mën nañu am njëriñ waaye la ñuy tënk pour nga mën koo jot dafay xaw a jafe léegi nag comme yàlla da ko roccal secret ba moom mu tënk ko da yomb da koy jël def ko ci lu ndaw a ndaw ñaari bayit mu tënk ci lu yomb yomb boo gisee xaside yi li ñu taxawee li tax mbindam taxawee loolu mooy daa wax ne muñdam da mujj di di taxaw taxawayu ko xamne da fay jakkar ak noni di jihad ak ñom ngir ñu gëm yàlla moy zabat kitabati aidallahi alahad wa khaf minni kull jahidin jihad sabbat kitabati kitaabati kafur tasli sama téere yi ñoo fek li nga xamne tuba bi wala nasran yi dañ koy ñettal yàlla sama téere yi ñom dañoo taxaw ngir ba don tak baras ba loolu du ci yàlla loolu tax serigne bi jël tiré yoy bo xolé loolu moom méthode am la ndax bimu mu dafa wax ne tawalif saada nawaytu tawalif saadaat ujaddiduna ujaddidu tawalif tawaaliifu ujaddiduna yi moy tiré mooy téere yi ma seeni téere dama koo bëgg a ngir laay biire mbindeef yi waxaa ne dangan nii ilaa nasihatu lil wara li ma ci mit weesuwul lu dul lu dul nit ñi wax ne borom subhanahu wa taala ci mbindam lay dundale lislaam xam nga loolu looloo tax nag mbindam doon lu xaw a xaw a dogaar ci côté boobu ci wàllu tawxiid ndax bu ñu seetloo danañ gis fu bari muy wax ne wabi ya jaddidi sabil bi laa den aw alami loolu bi mu doog a tàmbali la waaye wax ne yabufu uluma diini xatti mu jaddidan li nax ji nabi li nax ji nabi am faneen foo xam ne dafay wax ne daali tajdiidi lesi abdahu xattiya laa ilaha illa allahu sama mbind dafay leeral laa ilaha illa allahu yooyu yëpp nag da koo da koo da koo tax na suñ borom jox ko sekkiram ba mujj mbindam moom bi xatti si yox yi bi xayra islaam yi ci sama mbind la yàlla di dundali lislaam kon ci mbindam rek la ngay fekk ba tax na ñiy liir mi dem ñëpp nag borom xam-xam yi dégg arab ak ñëpp a ci yem ku ci liir mbindum suñ Tuubaa da nga ko bëgg da nga ni kii li muy wax fu mu ko ndax ñi dégg arab dañ njëkk a jaaxal naari gànnaar yi dañ ko doon mujj wax ne ko yow daf ñoo too da ñoo tooñ ndax liñ amoon lépp dañ koo jël am na ko ko xoromu woy ko ci bayit yi sax wax ko ne ko yow ndax dafa yeey yow Ahmadou Bamba yow yow doxandéem bi ñëw ci suñu réew mi li ñu amoon muy suñu ara araab yi ñu amee arab bi amee woon muy suñu làkk ak ndax goog arud ak bayaan nga jël ko jël jëlin woo xam ne ñun ci bopp mënuñu ko ba noppi yeeg yemoo ci loolu am ci yonent bi loo xam ne ñun amuñu ko. ndax am nax wal xarud wal bayaan li sulibat. lii bi wali bi xaxiyaanu wali bi xaxiyaanu daa mujj ah, ndax wu xarud moom. daa mujj sax moom nax wu xarutam dañoo mujj di jaamu yàlla. xam nga loolu la ci yéeme am na fu wax ne yàlla ci boppam moo ko xamal nax wu ak xarud. am foo xam ne dafa dafa wax ne eh, yàlla ci boppam moo ko sàllaangu arab yu mel noonu looloo tax xam naa yonent bi moo ko doon liggéeyloo ci diine ji maanaam ku ñëwoon la ngir remplacer yonent bi ci diine ji moo tax fu yonent bi laala woon rek sonnoon ca woote fa rek sëriñ bi sonn na ca wootee foofee ngir ngir ñu ñu ñu xam ko bim xam nga day wax ne laa ilaha illallahu noonu mu ko leerale mujj nag muy yox ne waqaahu laa ilaha illallahu muhammadu rasulu man xalaahu moom daa mujj laa ilaha illallahu doon ab pakkam بخنا دفكي فجل لب قبان وخنا بينت لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله لا رال ناقو دمكو لا رال بامدين وخنا دق لقنت لا إله إلا الله دعني كسن بعد بي دكو جل دكو لا رال تبير بندم جن بندم بجن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله kamna gatal fofu ci ci ci ci ci ci ci laaj bobu ba ba ñew ci jëf inshallah xadim batay mhm. bu gisee kon ci njangalum serigne mooy kennal suñu borom subhaanahu wa taala mhm. dëggal nguuram gi waaye jaare ko ci sunna si yonent bi sallallahu mhm. léegi nga xool kon jamono ji mhm. nan lañ war mën a tënk nit ñi kon ban defaroo ci tawxiit ndax dafa mel ni euh, sëñ bi bi mu fi jógee yàggut waaye euh, bari na boog am po wala caaxaan yu dugg yoo xam ne boo ko méngali tawxiit da nga naan kii amul dara ci tawxiit léegi loolu lan moo ko waral wala boog lan mooy remède bi xam na li ko njëkk waral ci cause bi ko waral mooy ne ñun dañoo baaxoo ne mbindum sëriñ bi dañ koy barkeeloo waaye duñ ko duñ ko seddu lu ma waxoon ne it saytaane xuri yi mu ko xuri bokk na ci ñàkk a jàngub taalibe bi maanaam xam-xam mu gàtt ñàkk a taalibe yi bokk na ci xam li ko li li li tax li ko saytaane maanaam li ko saytaane catam ci saytaane daal loolu la moom mënul ko dara waaye ñàkk a jàngub taalibe yi ndax bu ñu xooloon ne xasida yépp loolu la mhm. moom lim ñu jàngal lépp weesuwul loolu moom da daan wax ne yàlla daf koo def muy jaamu yàlla képp képp di liggéeykatu bi yonente bi te loolu yëmu ca waaye mbooleem mbooleem raqiib ak xatiib dañ ko koy seedeel bis bu set ci yàlla seedaloo na noonu lu mel noonu da ko seedaloo malaayika yi seedaloo géej gi sax seedaloo na ko jël na nit ñëpp témoigné seedali nañu ba ci noon yi mu wax ne suñu borom seedaloo na ne man jàmm yàlla la ak yonente bi léegi nag nit ki bi nga ñëwee fekk ko mu wax ne lii la soxla lii ci la nekk fii la nekk léegi umpale fi sëriñ bi nekkoon moo ñu yóbbee li ñu daal umpale fi mu nekkoon moo ñu yóbbu ndax bu fekkee lii ñu sos mu bees lépp dafa waxoon ne xarajtu min jumlati muhdasin xabiis mbooleem lu ñu sos lu bon génn naa ca dafa mel ne dafa gisoon li xew suñu jamono loolu la teel a woon waxaat waxaat yi ne buñ seetloo toujours dañuy wax hadamtu baatilan bi xaqin بحق جوجي داي ديلو سي الحق موي لله الحق لله آه، واخات لي قرات بفضل الله من كل باطل دا نجي سن يوي ييب داكوي ген واي نون دون سيت لو ميندم موتاخ نياك ريري مانام كوس بي تي نيك موم موي ني ريري غون ريري فيم نيكون موم فيم نيكون سي بوبام دون غو ريري خمغا مو فو واخه لكم خطابيا اهل العصر جملتكم بفضل من سؤلنا اتاوني الله ليسخر الدهر أني مؤمن أبدا ومحسن محسن ما حسبي الله ينيب لا يخل بيوم كن نين ما سيدلنا من جامو بيا الله بوخمنا آه، جامو بيا الله أب دقي دقي مؤمن لا موي دقي دقي مؤمن دقي دقي مسلم لا دقي دقي محسن لا waye mudmin ko xamne dama ci sax ba nopi yoy bu ma ci def tay bu sama baye dama ci sax ba nopi nak ma hasbi yalla yalla rek kama doy kenen ku dul yalla doy ma يلا ركبوا دوي لولو داف كوران سيدي يا جملة الخلق شهدوا لي يوما فيه يحوف المجرمون لوما بأن الدارين عبد الله قديم حبده ابن عبد الله تو بيغن تيقنوا بأنني لله عبد قديم لرسول الله يو دافكو داف مجمو يغن يشهد لي بشارقيب وحتيب في كل يوم عند سلع عرش المجيد raqi bagaat yi dañ ma koy seedal xam nga géejug maa yomba sax woo na ko ci tawhid ayaa baxru waxit laa tusalli sa rabbuna gis nga waxinu ñu waxin woowu dafa mujj lu mu jàkkaaroon rek woon na la ci tawxiid lu mu a doon rek sëñ bi woon na la ci amu ci woon sago da mujjoon nag mu doon jaasim say fi lladi yufritu la man sallasu tawxiiduhu fa huwa al ilahul waaxidu daa mujjoon tawxiid doon jaasim daanaka bu ñu ci duggee day xaw xam naa ñu gàttal foofu Xaadim jërëjëf jërëjëf mel na ni li ñu cërale woon ci waxtu dafa xaw a gàtt waaw waaw incha allah am na noonu ko sëñ bi waxee rek mhm. ginnaaw lenn lu ne moom woon na la ci tawxiid jàpp mhm. ndax mhm. da ngaa war a wéetal yàlla jaamu xel dem ci kàggu yi xëy ñenn ñi ni ñuy def jekk-jekk jël xasiday marché yi ni tagg yi wala xasiday sant yi demoon jàngi xasiday tawxiid yi te xasida yi fiqi ba xam suñu borom xam kan kan fan kan mooy yor suñu borom am tawxiid xam kan mooy fan nañu teg yonente bi doog a xam sax fu ñu teg sëriñ bi doog a ndax loolu kon jàpp naa ni ndax li mu wax ni at loobu min kal xilmi xablal xamal ndax ki nga xam ne day jëf te jëfewu ko ak xam-xam daanaka ak jaayale la ak réer rek mën na ko ci andil kon sa kàddu gu mujj sëñ xaarim ci nooy tàggoo waaw xam naa sant leen bu baax ci liggéey bi ngeen ko doxale ak tam yi am solo yi nga xam ne tànnaan nañ ko ndax day am solo maanaam fexe ba xaside yi ñu génnewaat ci mbindum sëriñ bi jàngale yi mu ciy jàngale ñu fexe ba génnewaat ko ci bu ko defee nit ki jàng dana xam ne man kat yor naa téere di jàng mara jalibatul maraaxib laa yor mafatihul bisri laa yor am na message bu ma ci sëñ bi bàyyi boo xam ne du du message jàng ko barkeelu képp kon war naa koo jàng ngir am na message boobu yi nag ma jéem koo xam koo kii loolu yi di ko génne di ko wane da ciy am solo loolu kon xam naa loolu daal lañ ciy mujjee mooy képp koo xam ne bëgg ngaa gëm nga sëriñ bi te bëgg ko bëgg koo liggéeyal li mu wax ne moo njëkk war ci murit mooy mu jàng tawxiid te loolay dëgg laneen loo jàng te jàngoo tawxiid fa la sëñ bi tàmbalee tàmbalee woo fa laneen lu mën a doon nit ki nag mënoo koo teg fu nekkul moom mhm. moom fi mu wax ne fa nekk nañ ko fa teg mhm. la ca des digganteem ak boromam suñu yoon ñu wax ne fa la nekk nañ fa yam fi mu ñu ñam loo nañ fa yam daal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim ñoo ngi àndoon ak sëñ Xaadim Faye ci wax dëgg yàlla kàddu yu am solo yooyu di guddi xasida gi nga xamante rek ñi ngi am fii ci Touba Milano ñu nekk ci treizième édition bi kon mbokk jullit yi loolu mooy li nga xamante rek andi loon nañ leen ko ñong leen di joxat daja rek ci yeneen plateau ak ndax borom xam-xam yépp ngi tok ku ci melni Serigne Bargu job ma nga nee tok Serigne Moussa mbay mi nga tok Serigne Moussa jahati Kamal Serigne Ibrahima ndjay Khalil sunu jëwriñ mi ngi fi euh, kon ci yeneen plateau rek in uridu ila islah ma taxtatu ila billah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ini ukhadimu nasara turra fi ni limaliki المرسلات إني أخادم النصارى